Dakar ñu dolli saa baax di sant yàlla bu baax a baax. waaw di sant di jaale àdduna ba àll moom Sénégal lañ di ko jaale presse wëpp di ko jaale di ko ñaanal yàlla di ko baax yi moom aussi yàlla ko suñu borom fay àllaaxira yàlla ko waaw moom suñu papa la suñu maam man kon lu ma la yore mun naa mbiru làmb man maa mujjee waxoon ne mun naa la wax comprendre nga boobu sax feebaragul defagul dara waaye gis nga loolu gisante tout le temps mun naa la wax weer weer tout le temps dañ doon gisante parce que ah, mun naa la wax su mel ni Badou Alane Ndiaye su mel ni xale bi Sora xale yi moom samay xarit la comprendre nga ñoom fii lañ féetewoo ñoom Alane Ndiaye ñoo féetewoo fii mu nekk അതുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ തീവ്രമാണ് Semua ya, dah udah jam ya lah, dah udah ini udah jadi, dah udah jata, kita awak ni lah awak. Wah, wah, lol, lol, lol, lol, lol, lol masih jangka, bawa kore. Sebelah, lol, kita dah bawa kata tak, kamu ada sekarang, kamu yang mana sekarang, sekarang juga jam raya alam ini sendiri. ci a wane dañ gis ne waa na ci mais askan bi xam nga fii nekk rek sa bopp lay waxal ku nekk sa bopp lay waxal tey mbëri génn wax luñ gëm askan bi tamit génn nañ wax luñ gëm comprendre ku nekk luñ gëm lañ wax comprendre xam ne ñun ñëpp Sénégal lañ bokk xam nga Sénégal moom dañu waxtaanee lépp ku nekk am na ku mun ku la nekk far am na ku la nekk ku nekk na ah, na bàyyi ko si question bàyyi ko si décision bàyyi ko si gëm-gëmam comprendre teewul ku nekk war a mën a am na lu ñu gëm yow am na loo gëm teel a teel am na lu ñu gëm comprendre na rafet rek di ñaan yàlla rek yàlla nañ suñu borom defal jàmm. bi xam nga tey comme lu ma lay rek kooku man néew ma fi woon xam na maa ngi saa si ay affaire ñu ngi utiliser lu bëri bëri bu wax man samay mbokku mbër la ànd na bu neex ba ma bedd leen ànd du neex ba ma wax leen lu ñaaw ànd du neex lu ma wax samay mbokku mbër lañ dama leen naw lool respecté leen yooyu ñaane yàlla na suñu borom defal jàmm ambal tamit am lu ñu gëm ñoom tamit am na lu ñu gëm si nekk am na lu ñu gëm waaye te bu farle am sama mbokku mbëri laa war a faral moom laa war a ñaaram moom laa war a def waaye tamit ambal dafa am lu ñu gëm loolu dong la waaw kon lu ma la supporter ñun ñëpp ñun ñun ñëpp ba léegi ay supporter lañu man ñu di waxee man supporter la comprendre bis day ñëw mu bëre sama mbokku mbëri ñëw bëre ma supporter man supporter parce que xam naa lu bëri ñu daj bu baax a baax kon boo déggee moo la waru ma waru mën a àmbale waru ma ñëw toog fii di ñaan ñu mbëri comprendre ànduma ak ñoom waaye waru maa toog di leen ñaan parce que la la am leen war a défendre war leen defal ñoom waaye àmbale Ama Baldé lu metti metti metti askan bi la àndal parce que tey lu ma mënti askan bi ma ko def aw ma benn liggéey làmb rek laa yaakaar bu làmb jeexal tey ñaar toog cinq ans laa toog bëre aw ma bu ma dem jàng ma def dara tey mun naa la askan bi laay dem kenn bay dawee kenn mel na yooyu loolu laa xam ne dañ laa sonn teew dem sama bëgg bëgg dama leen defal ba keroog ñu wallaahi lu ma la si moo leen mën a war doon laa gisa noonu lañ ko déggee noonu lañ ko téye wax dëgg yàlla kan waaw amaana tamit ñoom li ñu proposé euh, loolu président d' accord bañ bañ euh, mën a def loolu comprendre kenn xamul xamoo leen ndax seen intérêt personnel lañ leen doxal xamoo leen ndax làmb lañ leen doxal suñu ñu nag su fekk rek ak ku su mënti doon bàyyi xel sa askan bu ñu si mënut a doon rek bàyyi xel sa askan xam ni askan bi mooy lépp tey askan bi nekkul Macky Sall askan bi nekkul Sonko waaye ku nekk dana bàyyi sa askan parce que tamit buñ bu ñu dee askan bi ñu ko ñëw taxawu ñu Macky Sall du ñëw taxaw ñu keneen keneen du ñëw taxaw Sonko du ñëw taxaw ñu keneen keneen du taxaw kon nañ foog askan bi askan bi lu ñu nekk rek loolu lañ nekk. non xam nga ah man déggoo ko si benn interview ay defaat troisième man man sama politique man ay politique yi xaw ma ko yàllaa ma boole rek ma toog nii di wax rek di wax waaye yooyu xaw ma si dara boo si bëgg a dugal da ngay sonn rek waaye xaw ma si dara mënu ma la wax nii laa nee laa naka laa naka laa bay xalaat troisième mandat wala dara ñun lu askan bi wax lañ wax lu mu wax wax ko est-ce que xalaatoo ma xam ne yàlla suñu borom moo ma ko jagleel lépp lu si am rek damay xam ne yàlla suñu borom yàlla suñu borom mooy nangu mooy kii tey bu fekkee dama si war a am problème bañ jàpp mu wala loolu yàlla suñu borom moo ko si kenn du ma suñu borom yàlla suñu moo ne ama li la war a def loolu la def waaye amul dara loo xam ne ñu ci suñu laay parce que tamit yàlla ba mu ñu bind tàgguwul ba mu bu ñu rey tam du tàggu kenn yàlla ba mu ñu jox suñu wërsëg tàgguwul kenn xam nga kon kon amul lii pour suñu laay lépp lu war a war a dañ ko def parce que ay doomu Sénégal lañ dëkk bi dund suñu taabu def si lu ñu war a def ba amul dara lu ñu jiit en tout cas ñun dara du tax dara tax dañ jaay suñu bor dara dara du tax ah bañ def lu ñu war ko def waaw kon nañu ñaanal yàlla suñu mbokku bëri tamit yàlla na suñu borom defal jàmm waaw fii ku rëy rek ñu ne la ndër bi fii ku rëy ñu ne la ndër xama xama bu xam ne néew doole tooñ la waaw bu rëy rek ñu ne la ndër waaw yaakaar naa ne mbëg war a doon ñun jërëjëf kontaan naa. moom bu sol affaire bi. amaa ñu ngi bokk yow tiis bi nga xam ne daal na ci ci monde la. Uh-huh. parce uh-huh. la baax. dëgg yàlla man kër gi moom mun naa la wax bàyyi non mbëru Sénégalais bu sa nekk man la mujjee gis man la mujjee waxtaanal man la mujjee dégg comprendre te naa lu ma ko doon gis bëri na si biir weeru koor avant weeru koor bi ba après noonu bañ jàpp sama dara sax laa ko xaw a raar tuuti ku baax la bàyyi ku mën a social la ku ku oyof la xam nga nit day am place si kaw ba pare toog suuf te moom noonu la ko ba am place si kaw ba pare toog suuf léegi doo dara comprendre kon dañ yàlla na ko suñu borom yàlla ko suñu borom la ko cat lépp lu def si àdduna suñu baax rek ah yàlla na ko suñu borom fayee àllaaxira waaw mooy julli jaamu yàlla liggéey xale lu buggee bu buggee ëllëg lu mu lu ah, mu lu mu am faj sa soxla day nangoo denc boppam sàcc boppam ñu dugal ko chaque jour loolu la mu doon wax. mën naa la wax lu bari sax ba muy ah, badu la joxoon liggéey bi yu bëree bëri mën a badu ñoo doon ànd di ko def xam naa si dara lu ndaw lu tuuti tuuti. wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm année balance bi moo année balance chaque ma koy wax dama jàppal yàlla suñu borom ñu mu tëj nit dix ans wala cinq ans. te du ko te du ko trouver solution moom moo ma gën a yokk courage boobu tout le temps rek moo gisee def statut dañoo wax statut dafa def statut ma bindu ko même pas trente ma dégg bàyyi aala gaañ na fekk boobu sax gaañoogul ndax moo doon def statut sa loolu après si laa wooyee Aziz mu ne ma ba ñu fekk loolu mu gaañ boobu nag ma amoon fu ma nekkoon comprendre nga waaw déedéet guddi moo tax ah daw ma sax waaw loolu loolu la. jiw li bari na de <laughs> yaa ko waral. <laughs>